yéen tamit Sonko bokk arrangé wu non non non non ñun. ba sànq ba tey maa ngi koy wax parce que jooyu leen ñàkk bokkam. maa ngi koy wax fii xool non non non non non dimanche dernier Pape bii bële. lors du conseil national des enseignants. mais c'est du politiquement correct. waaw kon hmm. mais ñun kay wax la. <laughs> c'est du politiquement correct xamul ndax man li ma la wax fii tey ci ay révélation man man utuma lu neex nit utuma lu neex kenn man dëgg laay wax li ma gëm laay wax li ma xam laay wax ñun dañ ne. élection inclusive lañ wax bu ñu sañoon tey man wax naa ko bàq démb ci sa beneen confrère bi opinion deux choses laa wax fi laa koy waxatee Ousmane Sonko doit être libéré de prison rapidement et tout le détenu avec deuxièmement dafa bokk ci élection bi d'ailleurs que ñoom ils disent que Ousmane est toujours éligible alhamdulilah taxaw qu'est-ce que vous faites pour matéri pour matérialiser ce vœu là xam nga toog rek ci plateau yi ak dem à l'extérieur naan Ousmane dañ ko war a libérer liñ ko teg injustice ça ça relève du politiquement correct le cadre unitaire que Yewwi Askan mun na à part dem Touba mais waaw mais démb dem nañ affaire bi mais mun na il faut qu'on soit réaliste des fois nit ñi dañu lay jëndal fas yaa biir te duñ duñ la may ngooñ Ousmane a fait combien de jours de blocus chez lui mu tombé ak tabaski nga naan duñ tabaski Ousmane mu ngi këram dañ ko wax génnee nangam nangam bu ñu demee après tabaski ba dama ne leen Ousmane Sonko li ko def c'est injuste ñun ñëpp soo xëy nañ soo suñu dara yu rafet dem julli ji rey suñu xar lekk suñu yàpp moom mu tëdd kër mënut a génn bu daan waa Yewwi même les leaders yi ba ñu dem naan dañ koy seeti c'était ridicule fu ñu mujj après. depuis loolu est bu gars yi mën a Ousmane Sonko. et que ça veut dire d'après yow. mais parce que. nan nga ko pare nañ ci loolu ñoom. pare nañ ci Ousmane pare nañ ci loolu. et aujourd'hui ce qui est vrai mooy que ne est-ce que Ousmane Sonko jox am na ñoom ñoom am na aide est-ce qu'il les reçoit est-ce que mu wax ak ñoom. waaw mais ñoom Habib wax na ko démb nee na euh, il faut que ñu bàyyi nit ñi ñu mën a accéder ci Ousmane Sonko l'administration pénitentiaire euh, d'après li mu wax moo mel ni nanguwul Euh, ñoom ñu mën a accéder ci Ousmane Sonko mais am na ñu bëgg ñu ko ñu ko gis. am na ñu ko gis même au début ces avocats ont eu des problèmes. pour le voir mais maître Ciré Clédor Ly daal laa jàpp ne man li may wax Ousmane Sonko dinaa ko gëm mais waa Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko gisuñu ko dégguñ ko.